ci point yi nga xam ne danaan am ay jafe-jafe daanaka at mu jot bi ñu defee tournée ci bi ñu jëlee euh, fonction rek dañu identifié woon ay point point yooyu noonu bu ñu demee ñu waxtaan ci ak kilifa yi euh, président de la république joxe ci ay instructions pour ñu mun a saafara point yooyu noonu point yooyu bokkoon na ci bassin bi nekk wëti buntu Pikine wëti Dalifort ak réseau bi nga xam ne mooy nekk ci wëti route nationale bi loolu saafara nañ ko ba jafe-jafe yi fa daan am amu fa boo duggee fi nga xam ne mooy buntu pikin am na benn point boo xam ne at mu jot da daan am ndox muy bunt wëti daaru quartier bi ñuy wax daaru ñàngoor foofu nga xam ne oto yi sax dañ daan teggi bu ñu waree dem euh, Pikine wala yi wala Yëmbal dañuy obligé jaar beneen yoon tey foofu noonu def nañ fa benn réseau boo xam ne population yi seen bopp ñoo seedeel seen bopp ne jéego yi ñu fa def andi résultat bu positif te am na impact seen dundo bi fa jógee dem nañ fii nga xam ne nii mooy Pikine Nord ci école Ndiaye ak wuti Dominique nga xam ne foofu aussi benn point bas bu fa nekkoon yàgg fa lool daal di yàgg am ay jafe-jafe di sonal askan wi nga xam nawet bu jot ñëpp dañ daan sonn mais gis nañ ne def nañ fi benn station bu 2000 mètres cube heure boo xamante ne tey lépp lu ndox mu fa ñëw rek dinañ ko mën a yóbbu ci station bi mu yóbbu ko ñu jaar aussi école 8 école huit nekk point bu yàgg boo xam ne ëpp na 40 ans ndax ku wax Wakhinane wax ne point ba wax zone boo xam day am inondation foofu ñu def benn station de pompage boo xam ne tey ndox yi nga xam moo ñëw ci zone boobu yëpp station boobu moo ko moo ko war a yóbbu mu nekk aussi satisfaction boo xam ne population yi firndeel nañ ko. vraiment liggéey bii nii ñu mairie bi sóobu ak euh, monsieur le ministre nekkoon na problème bu rëy si si koñ bi parce que koñ bi moom vraiment ku ko xool xam ni point bas la. ndox bi daraan dajaloo fii lu bëri te kër yi dañoo xaw a suufee mais maintenant depuis ñu installé réseau bi ndox bi mu ngi dem vraiment mu ngi dem bien va taaru Njàngoor koñ bi koñu Daaru Njàngoor la tudd ku ko xamul waaw de xam nga ni fii moom ndox moom sonaloon na population bi trop waaw même tali bi aussi waaw moo taxoon ñu def fi saaku yeeg kii mais vraiment depuis réseau bi mu amee ba léegi moom ndox bi mu ngi dem ko mbégte la ñu am si infrastructure bi parce que fii nekk na point boo xam te ne na am ndox à chaque nawet bu amee dafay am ndox mu bari bu fiy nekk pratiquement parfois dafiy nekk ba école ubbi sax du ñu am solution et à chaque fois on voit que mairie bi day jug def fi ay ay saafara boppam quoi dindi ndox mi def fi ay suuf et cetera jéem a jéem a arranger la situation mais nekk na loo xam te ne du lu ñu gënal ñun li ñu gënaloon mooy ñu def une solution boo xam solution bu structurelle lay doon bu définitive parce que mënuñu xaar à chaque fois. jamono ji septembre mu am ndox ba octobre ubbi parfois ba novembre fekk ndox mi di dem léegi di tardé donc euh, nekk na doléance yoon chaque jour dañ ko doon jooy daal donc dañ ci félicité ministre Issakha Diop taxawaay parce que aussi mu xam na taxawaay depuis Pikinois la si la dëkk xam na si bu baax parce que mu nekk ci fonction ba léegi daal il n'a ménagé aucun effort pour que loolu noonu ñu saafara ko donc su fekkee commencé nañ am début de solution mu nekk lii nii nga xam station de pompage la ñu ngi commencé gis FM et on espère que dinañ ci gën a góorgóorlu ba nga xam ni fii ak biir dina nekk loo xamante ni lu ñuy fàttalee doon daal. dafa un projet boo xamante ni ñu construire ñu construire benn station de pompage euh, bu 500 mètres cubes heure parce que il y aura deux pompes de 250 mètres cubes heure fi mu toll nii si wàllu travaux yi jot nañu poser refoulement bi mooy canalisation bi nga xam ne si la ñuy pomper donc ñu ngi actuellement ñu ngi si euh, defar bâche de pompage bi si la ñu toll nii moo tax ngeen gis. engins yi yëpp si si suñu ginnaaw donc ñoom amorce bi def nañ ko ba pare le liste des mooy ñu fuyee dugal euh, kii bi donc continuer travaux yi bu ñu paree si loolu nag si la ñuy doog attaquer réseau gravitaire bi collecter point yi nga xam ne yëpp dafay dafay taas yi si école bi indi ko si bâche bi pour mu mën kii ko même luy paregul sax ñu jot nañ fi def benn dispositif benn pompe saa bu tawee am na ñu ngi fi teg ñoo xam te ne ñooy jël en charge pompage bi saa tawee ñu ñu ngi fi ñu kii nii même lii bu eggul tamit dinañ kii mais dañu yaakaar parce que école bi particularité mooy fi mu toll nii école mu ngi tujj boo xoolee actuellement ak entreprise climate bi yor travaux yi ñu ngi si cinq points cinq ou six points mais yëpp dañ leen xaw a arrêté. pour ñu wax ni parce que li ñu bëgg naa deux semaines hmm. au mooy ñu mën libéré libéré école bi élèves yi mën dugg si si si war ko mën am entrée bu bu normal waaw. ministre naxunu la mu waxoon la def ah. ma ko wax nag ci turu commune Pikine es ndax fii laa defee primaire kon xam naa ndox mi tant kañ la ñëw ak kañ la fi am kon lam ñu waxoon naxuñu ndax nekkatuñ ci politique naxe mbaay te won nañu maire bu na jaar na fi nag ñu jooy ndox dañu naan suñu kër ndox maa nga fa kon duñ pompe école yi kon nag bu ñu amee maire boo xam ne indi na lii dañ koy gërëm di ko sant yàlla indi ko mu nekk ministre yàggoon ci ndox mi nag doon nañ ci def lumu mu mën ci ndox mi ba yàlla indi nekk mu nekk ministre ñëw di def lii kon def na ma ni nam ñu gënam nag ONAS ndax jàpp nañ ci ndax liggéey mën na ko ko jox nga baissé les bras mais jàpp nañ ci moom it ñu ngi koy gërëm commune Pikine Est yëpp mag ak ndaw ñu ngi koy gërëm ndax lii bu ko defee ñun la ko defal ngoox ngoox yi suñu kër yii man ak école bee jëlloo kon lu ma ci wax xam naa ko kon ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla bonne continuation président nag na xam ne kii mu indi doomu Pikine na yokk na bu yokkee ñu yokk bu yokkee ñu yokk Pikine suñu Pikine la président nag moo nekk gañ Pikine gañ la def euh, Dakar kon na xool Pikine na xool doomu Pikine yi lancement bangoog na xool doomu Pikine yi xool pikin lu muy def dolli ñu nag ndax ku dolli cere dolli ñeex. depuis cinq école huit day inondé mais bu mu nekkee fii ba tey moom day dugal doxam ci affaire inondation école. bon nga fii dafa nekk euh, point bas donc point bas bi en bon dans le cas du PDL bi dañuy euh, wax ne en fait dañu fi teg ay tuyaux yóbbu ko si kanal ba donc fii nii amul amul pompage gravité lañu bëgg mu ànd ak mu dem dem si kanal ba donc comme ça au moins bon su tawee ndox bi si tuyaux yooyu lay jaar wàcc dem fële donc si loolu la ñu euh, prévoir fii quoi au niveau de euh, Ndiago Baar. fii de daanata ndox bi daawul dem bon maintenant dañ koy utal solution utal ko yoon. pour mun a su tawee ndox bi mën a dem fekk ji ay canaux yoo xam ne moom ñu ngi fële defar nañ ko pare. waaw si loolu la nara def donc mais maintenant si nawet bi bon ak euh, partenariat ak euh, une association communautaire yi euh, on a prévu en fait bon mettre nañ fi ay système de pompage pour de manière vraiment provisoire quoi voilà des mesures de de d'urgence sécurité pour pouvoir pomper les eaux. jaaxle gu jaaxle ci Ndiago Baar muy barab boo xam ne ëpp na ñaar fukki at eh, nii lay mel ñu amoon ci yaakaar loolu nag ndax tëb bi ñu tëboon. Euh, damay wax ci olof tëbu gaynde la mais dañu egg egg muus maanaam doxatul sa fait presque un mois travaux yëpp taxaw na bi ma laajte tamit dañu wax benn Touba S2 moo leen téye je pense que loolu war nañu ko gaaw lijjanti ndax fii sonn nañu jusqu'à présent riverains yi mënuñoo génn seen doom yi mënuñoo génn seen soxla yi mënuñoo génn bu ñu amee génn te amuñ fu ñu ko defee mbedd bi metti na te yaakaar naa ni amoon nañu saafara ba pare kon lu ci des bu fekkee ci entreprise bi la na baral loxoom bu fekkee SISD la ministre na joxe commandation ñu gaaw libéré ñu mën a defar yëf si balaa nawet ba jeex dëkk bi sonn nañu te metti na metti na ci njaboot gi metti na ci dëkk bi jaaxal nañu en tout cas am na espoir ndax li ñu am amuñu ko woon depuis moo ñëwee ba wax dëgg yàlla ñu ngi remercier le ministre def na fi trois visites ba pare le projet a été à une valeur de 30 millions non fii dara xew ko fi dara soulagé fi mooy def machine de bu ndox mi ñëwee pompe ko à part ça amul lenn nii la daan mel naka jekk dafa yokk sax parce que côté bële travaux yi nekk dafa am suuf fii am suuf dèjà ndox yi mënutul lem depuis nawet biñ koy waaj ba léegi ministre ñëwoon na fi defoon visit xool situation terrain bi àndoon ci ak euh, borom dëkk bi muy le maire ak population bi ak acteur bi euh, bi ñu waxee li ñu war a wax dem nañu jël seen matuwaay ñëw indi fii ONAS pour mu jël li nga xam ne mooy les travaux commencé nañu liggéey bi yembagul nag mais ci biir liggéey bi bi mu commencé terewul ñoom fexe nañu ba jël ay mesures alternatives fexe maanaam teg fi benn électropompe de quatre cent mètres cubes par heure au moins lu taw ñu vide nit ñi mën a soulager wu. te wax dëgg moo neex yàlla nit ki su fekkee da ngay collaborer ak moom bu mbir mi doxul nga am fulla ak fayda ne ko doxul su doxee war nga am courage ak ngor ne dox na. parce que ku ko xamoon démb barki démb Ndiago Baar di nga xam ne na mu meloon ak na mu mel tey ute na ñun ci askan bi la ñu bokk ci askan bi lañu dëkk su gisee lu baax dañuy am courage ne lii baax na.